reconnue par le monde entier et surtout DG lors des élections locales passées. Comment on peut l'imaginer Mais il a peur. Il sait que nous allons vers une cohabitation avec l'accord que nous avons avec Wallou, ce plan qu'on en train de déployer et qui aujourd'hui nous impose que celle-là qui aujourd'hui expose le pays. J'ai reçu beaucoup d'appels d'amis étrangers qui se posent sur cette, des questions sur cette décision de l'Intérieur. Sur quel droit c'est appuyé pour sortir une décision Personne. Vous avez fait des universités, vous avez fait des études de droit, vous êtes des intellectuels de haut Comment pouvez-vous comprendre qu'au Sénégal, aujourd'hui, avec toute l'expérience que nous avons dans l'organisation des élections, que le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, sorte une décision qui n'honore pas notre démocratie, qui n'honore pas notre démocratie. Donc, justement, nous demandons tout simplement d'arrêter cette mascarade et nous sommes venus ici devant les charges du Conseil constitutionnel faire le déposer et pensant que nous pourrons justement bénéficier de la sagesse qu'on attend d'eux pour que les droits soient recollés après que le ministre Antoine Diom vient hier de profondément. est Il n'y a aucune disposition qui peut aujourd'hui permettre à qui que ce soit de rejeter le document. Il ne faudrait, pas, être dans des théories impossibles. Le soleil s'est levé au sud. Donc il ne peut pas être dans des théories impossibles. il est impossible que la liste des titulaires de Yéhu Askelou soit rejetée. Lui-même n'a pas motivé rejet. Il a renvoyé à des articles. Vous avez bien vu l'arrêté. Parce qu'il était dans des difficultés réelles de rejeter cette C'est pourquoi il a renvoyé à des articles. Différemment du de la liste de Benobo Piaka, où il a même parlé de la parité à la fin. Vous, vous, vous, vous bien relisez bien l'arrêté. Donc lui-même a des difficultés. Mais c'est parce qu'il sait que la liste de Bernard souffre de profondes irrégularités qu'il lui est impossible de corriger et que je suis passé, j'ai mis à nu le plan qu'ils étaient de, de, plan parce qu'ils n'avaient pas contrôlé la liste de Bernard pour être en tout cas très honnête avec eux pour être avec et dire qu'ils l'avaient vu, mais ils avaient vu le cacher. Mais en tout cas, ils n'ont pas découvert cette erreur que moi-même, en me déplaçant, j'ai eu à et ils ont des à voir les Et c'est ça qui les amène à vouloir sortir d'une erreur qui n'en pas une, la sanctionner concernant la liste Yéhu Askani, donc de de, de alors, concernant la liste des suppléants de Alors, il dit que c'est une mascarade qui n'a pas de sens, qui ne doit pas aujourd'hui exister au Sénégal de cette maturité démocratique qu'on le connaît. Et le ministre Antoine Diom vient de montrer encore une fois qu'il est incapable d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays. Et ça nous ramène à ces vieux débats qu'on a toujours eu, à pour toute élection par une personnalité neutre et indépendante. Et ça a été une doléance de toutes les oppositions qui se sont succédées et en son temps même Macky quand il était dans l'opposition entre et Alors certains constitutionnalistes attribuent au Conseil constitutionnel le rôle d'un régulateur social. Si jamais euh, les séchages arrivent à, donner raison euh, à euh, de Beno Bokoyakar et de la coalition quelle sera la démarche que votre coalition va adopter Nous sommes pour l'application du droit.

un excédent sur les parrains et a la jurisprudence Maligakou. Souvenez-vous, ce n'était qu'à cause de cela qu'il n'a pas pu participer à Donc, ce que nous demandons, c'est de la loi, sachant que ça ne peut nous mener que vers ça. Nous avons une liste la liste Benno Bokyakar souffre de deux si si si wolof effectivement danoo ñëw déposer ñetti requête benn bi mooy requête jëmale ci li nga xam ni moom la Antoine Diome def jëm muy ñombe bi nga xam ni yëngal na àdduna bi yëpp ndaxte kenn mësul gis lu mel ñëw Sénégal boobu ba tey dafa jàpp ni liste moom benn la dafa am titulaire ak suppléant mel na nga ni équipe de football ni équipe de football day am ni football titulaire am remplaçant mais mosoo dégg équipe bu ñu divisé ni titulaire yaa ngi nii remplaçant yi nii tooga leen mën ñaari équipe la loolu kenn mosu ko dégg fa donc c'est la première fois ñu dem élection Antoine Diome génne lu ñu mel ci sunu droit droit boobu jàngu leen ko université keneen jàngewu ko université moo tax bi ma nit laajee ma leen ci moom mooy droit jomique du droit bi ngeen jàng droit Antoine Diome la parce que loolu nit mënu ko xalaat loolu nag la ñëw contesté si parce que décision boobu kenn xamul lu muy nuru décision bu yàq réew la décision bi nga xam ni la musiba la ci biir réew parce que nit da ngay dem ak xel xoolal li mu def rek tey bu fekkoon benn list moo dem ci ñaari liste yooyu nga dem assemblée nationale kenn ci ñoom am fa indisponibilité kon assemblée bi day doon une assemblée illégale parce que nombre bi nu wax moo nekk ci texte yi nombre boobu doo ko amati parce que ki xam ni ki nga xam ni tey dafa invalide wala ki nga xam ni tey mënatu fa nekk kenn du ko mën remplacer te parce que suppléant amul mais mais mais est-ce que loolu maanaam man damaa xamul waa ji ma ban façon nit la c'est-à-dire que dafa am yi nga xam ni da nga koy dem ak xel mais mënoo jël droit bi di ci def lu la neex et c'est ça qui est malheureux parce que nit boo amee une responsabilité da ngay mën mesurer lan la et wane na askan wi que xamul li mu yor lan la bu demee ba warte di jël ay liste di ko diviser alors que yàggul rek ci élection locale yi ñu jëm yi ñu jógee boo leen gisee fële Kédougou lan la ñu éliminer ku mel ne Guirassy bu leen di fàtte parce que yéen taskat xibaar yi yéen yi nekk fu ne Guirassy lañ ko éliminer mooy dafa am liste titulaire mu mat sëkk liste suppléant ñu doon xaar mu joxe seize far mu joxe onze ñu ni ko sa suppléant yi dafa matul moo tax ñu ni ko doo bokk ci élection yooyu loolu la ñu éliminer grâce yi fële Kédougou yow fii nii ñu ni yow noo sa liste suppléant yi am na irrégularité non dañ koy saucissonné mais sa liste titulaire yëpp ñu dem te ñaari élection yi ñetti weer ñoo ci dox ñaari élection yi benn nit ki moo ko organisé bee mu def ci lii bii mu def ci lii parce que en réalité li xew mooy jàpp nañu leen ci seen ñombe bi nu amee seen non respect de parité boobu nëbb ko wala gisuñu ko bi ma déplacé woo dem génn xamatuñu lu ñuy def xam nañu ni lii cas d'irrecevabilité flagrante te boo defee irrecevabilité léppay demandoo ñu ni kon nan lañuy def nan ko dagg lii dem ñu téye loolu ban droit la mos a am amul fenn xam nga lii koo koy wax danaan mais kii kan la yàpp beneen irrégularité bi mooy li nga xam ni moo jëm ci panel yi nga xam ni seen tête de liste nationale di madame Aminata Touré moom ci boppam moom moo ko reconnaître ni am na un excédent benn panel mais ñoo ko ci defee woon noonu mais benn bu ëppee baaxatul benn bu manqué baaxatul ëpp moo taxoon Malick Gakou bokkul woon élection présidentielle donc ñoom ñu am ñaari ñoom be yooyu ñu ni comme lii day jafe pour ñu jàkkaarloog sénégalais yi wax ak ñoom nanu xool yeewu askan wi lu leen gaaw ku nekk xam na ni Fama Meng inéligibilité moo ko frappé ñu changé ko par Anta bu amul qualité changé ko mais fan ci àdduna ak ci ban élection lanu mos wax doublon objet de rejet d'une liste la amul fenn même ci code bi dafa ni loolu bu amee objet de rejet de la candidature la c'est-à-dire que candidature bi mooy jóg mais liste bi du jóg loolu texte si ñoo ko wax mais mu ni comme lële nee na weng il faut ma gàll ñi bi et loolu franchement bu fekkee am nga yenn responsabilité yi xam lan lay tekki ci réew lan lay tekki ci stabilité réew am na yenn décision mënoo ko jëlee bakkan mënoo ko jëlee par parloo et loolu daf ñuy ramani ci débat bi nga xam ni moo fa mos a existé muy débat de ministre chargé des élections bi nga xam ni day tëddee ñaaxanaay tant que loolu amul mënoo fi am ay élections libres et transparentes et tey Antoine Diome wane na ko ci taxawaay bi nga xam ni àdduna bi ku nekk mi ngi woote naan lan moo xew seen réew nan la droit bu ni mel mën appliqué wu xanaa léegi da ngeen am droit bi nga xam ni c'est spécialement sénégalais mun leen non droit wu Antoine Diome donc li ñuy wax mooy loolu du dem loolu du jàll loolu duñu ko setal et ñoo ngi xaar sage yi nga xam ni ñoo nekk conseil constitutionnel ñu am taxawaay bi war pour mën a arrêter Antoine Diome arrêter lii nga xam ni génne na ko nga xam ni boo ko toppee sax même assemblée bi ñu jëm mi ngi koy exposé d'irrégularité mi ngi koy exposé d'illégalité xam nga nit booy def da ngay xalaat les conséquences boo nee ni dem leen ak titulaire sans suppléant boo demee kenn ci ñoom foofu am lu ko dab ba nga xam ni mënatul nekk député kenn mënatu ko remplacer parce que liste boobu amatul bu boobaa lan lay assemblée bi doon assemblée bi nga xam ni député yi matatuñu bu député yi matatuñu assemblée lan lay doon. assemblée illégale assemblée irrégulière Sénégal tool na fu ñuy toppee Antoine Diome mu ñuy exposé exposition ay institution parce que tout simplement def na ñombe bu muy jëm voilé mais il faut qu'il arrête c'est trop petit c'est enfantin celui-là il ne mérite même pas que je l'appelle le ministre de l'intérieur il n'a même pas cette qualité à mes yeux parce que mesurewul la responsabilité de ce qu'il fait ku nga war taxaw fii ñu naan mooy ce ministre de mais il n'a pas cette qualité parce que xamul li muy def mooy lan donc di demande les sages pour que tout simplement ñu revenir sur ça permettre à Yewwi Askan Wi à travers le droit qui sera dit mu participer et ce même droit également exclut Benno Bokk Yaakaar. merci Déthié Fall quelques mots rek euh, dañu xaw a tardé un peu mën nga ñëwaat par rapport ak yow bi nga xam te woon ko ci conseil constitutionnel. waaw dañoo ñëwoon ay recours benn bi jëm ci. mbiru décision bi nga xam ni moom la Antoine Diome génn démb ñu ci réew ndaxte kenn mënul gis kenn mësul gis ngay jël ay liste di ko saucissonné naan équipe de football la yéen titulaire yéen a nekk nii remplaçant yi yéen mën ngeen bañ a bokk ci équipe bi kenn mësul li nga xam ni day ñuy delloo ci débat bi mos am débat irresponsabilité ñenn ñuy organiser élection yi seen manque de neutralité débat boobu la ñuy renvoyé et Sénégal tollul tey fi nga xamee ni war na nañu continuer di am ces débats là sa à dire que kii mesuré wul sax les décisions yu muy jël conséquences yi ñuy am ci stabilité réew bi conséquences yi am ci régularité yenn institution yi imaginez liste bu amul suppléant wala liste bi amul titulaire kenn dem foofu am lu la dab kenn du la mën a remplacer bu boobaa assemblée bi nan lay demee assemblée bi nga xam ni lim bi ci député bi nekk ci constitution bi lim boobu dootoo ko am mu doon assemblée irrégulière mais nga xam ni kon kii matul liñ koy doye xamul aussi li mu yor mooy lan loolu nag lañu ñëwoon di contester pour que décision boobu soit cassée sachant que dans tous les cas amul lu mën a nit mën a wax base ko ci droit ba yeewu askan wi du bokk ok def ngeen li ngeen xam ne moom la leen droit may maanaam ñëw dugal li nga xam ne rek mooy réclamation ci conseil constitutionnel lan ngeen xaar ci juróom-ñaari charge yooyu ne mooy sage mooy fexe ba lii nga xam ni tey moom la Antoine Diome teppi xotti ko muy sunu droit ci bakkanam ak ci jëm sóobe liste Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu am sagesse su ñawaat ko loolu rek. tey ci liste Benno Bokk Yaakaar ñu ngi wax ci wàllum ëppal ci wàllum parrainage est-ce que loolu da ngeen ko fas yéene attaqué. attaqué nañ ko ñetti recours laa dugal benn bi ci loolu la benn bi aussi ci li nga xam ni mooy non respect de la parité la parce que ñoom bu fekkee dañoo wax droit la war ñu sax bokk ci élection yi parce que li génne Malick Gakou 2019 ci présidentielle yi conseil constitutionnel la jóge et ci loolu la gàll woon kon bu ñu waxee lu ñu mel encore rek loolu moo leen di génne ci élection législative yi nga xam ne am na ñetti fan pour statuer ci seen recours bi est-ce que par rapport euh, manifestation bi nga xam ne yéen a ngi koy waajal am na ab coïncidence on demande à tous les Sénégalais de se mobiliser jaajëf merci euh, voilà donc ñu ngi gërëm bu baax a baax ki nga xam ne moo di Déthié Fall euh, nekk le mandataire de Yewwi coalition Yewwi Askan Wi moom moo génnee noonu ci boobu le Euh, bërëb bi nga xam ne rek euh, moo di euh, conseil constitutionnel mi ngi ànd également ak Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Tidiane Dioum bu coalition Yewwi ak Wi également ñu ngi ñëw fii peut-être on va rek ñu jéem a am ñenn ci ñenn ci ñoom ak seen impression ci ñi nga xam ne rek teewoon nañ fii Cheikh Tidiane peut-être est-ce qu'on peut avoir votre votre ah, voilà ñu avancer un peu pour ñëpp a xool Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh, excusez-nous, est-ce qu'on peut avoir votre avis par rapport à Théo Voilà, on peut en quelques mots, parce qu'il y a des gens qui, il y a des gens qui nous suivent actuellement, vous êtes bien conseil constitutionnel. Lan nga mën a yokk ci par rapport ak recours bi nga xam ne yéen a ko déposé fii. Ah, recours bi comme nu ko euh, loi bi waxee euh, su fekkee ne am na décision bu ministre bi jël euh, sous forme d'arrêté am nañu possibilité ñu ñëw contester que au niveau du conseil constitutionnel donc loolu la ñu def. donc arrêté bi nag liñ ci jàng moo nekk dafa nekk arrêté boo xamante ne nii amul benn base légal te ministre bi mu koy jël sax amatul woon euh, daf ko jël ci li ñuy wax dans l'illégalité mooy délai yi nga xam ne nii ci la ko waroon jël dépassé na ko donc euh, loolu moo tax euh, ñu ñëw conseil constitutionnel déposé euh, pour contester arrêt boobu arrêté boobu déposé nañ aussi yeneen ñaari dossier parce que faudrait pas nit ñi fàtte ne conseil constitutionnel war na trancher ci euh, le fait que Benno Bokk Yaakaar seen coalition bi dañu euh, respecté wuñ parrainage bi donc loolu fàtte wuñ ko d'ailleurs le ministre ci boppam démb bi muy euh, statuer waxu ci dara bu ñu fàtte aussi parité bi respecté wuñu ko et c'est pas pour rien aussi que ministre bi mu scindé suñu liste coalition Yewwi Askan Wi mu scindé ko en deux scindé en deux aussi la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar et puis en plus de ça mu def loolu yëpp ci délai boo xam ne ni dépassé na ko donc maanaam nekkatul woon ni dafa war a jël décision foofu li mu waroon def le ministre dafa waroon simplement jël liste yi comme ni mu ko jotee mu publier ko noonu après il appartiendra à chaque mandataire ñu euh, def seeni recours mais moom loolu yëpp daf ko def stratagème bi mooy maanaam lim ci jublu mooy def arrêté boo xam ne nii du amul benn légalité amul benn base légale bu ko defee bu ñu ñëwee fii conseil constitutionnel sage yi rejeté arrêt bi euh, arrêté bi bu ñu rejeté arrêté bi dañuy ñëwaat ci situation bu njëkk bi mooy maanaam dañuy valider ñaari liste yëpp sauf que ñun nag du ñu bàyyi euh, euh, aspect parrainage bi c'est extrêmement important respecter loi bi coalition Benno Bokk Yaakaar warul participer ci élection yi sur tout le territoire national même su fekkee ne aussi parité bi respecté wuñ ko liste proportionnelle bi dañ ko war rejeter mais au-delà du reste du de de l'irrespect de la parité le parrainage kooku fàtte wuñ ko ba tax na Benno Bokk Yaakaar warul participer ci élection yi ci sur le tout sur tout le territoire national. laaj bi mooy est yi dina am ci date bi ñu ko jàpp. gisuñu lu war a mën a tax ba élection yi du am processus bi enclenché wu na. Euh, parti def nañu seen euh, li ñu waroon def def nañ ko euh, ministre bi donte posé na jéego yoo xamante ni méngowul ak li mu war a def gis nañ benn parti pris mu jël donc jàpp nañ ne gisuñu lu war a mën a tax ba élection yi du am donc on considère que les élections dinañ am au 31 juillet 2022 yéen a ngi waajal manifestation le 3 naka ngeen koy waajale manifestation bi ni ñu koy waajale mooy ñu ngi woo sénégalais yëpp ñun au niveau de chaque organisation bu bokk ci coalition bi dinañu woo suñu ay militants suñu sympathisants woo sénégalais yëpp pour ñu ñëw participer ci euh, manifestation bi pour ñu expliquer leen donte xam nañ ko wax leen ce qui se passe réellement li nga xam ne ni moom la Macky Sall bëgg à travers son ministère de l'intérieur loolu lañ bëgg wax sénégalais yi bu ko defee sénégalais yi ku ci nekk jël sa responsabilité xam ne am na loo xamante ne ni mënatul nekk te dootuñu accès